asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaare di leen ndokkeel di leen balu àq di ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu jéggal ñu suñuy bàkkaar nangul ñu suñuy jaamu yàlla ko ñaan mu yàggal fi suñu kilifa gi Cheikh Mouhamadul Mountakha te yokk ko wér ba mu àggalee ay naalam ak yéeneem lu dellusi rekk ngir fàttalente lu jëm ci suñu diine ak suñu nekkiin ñu bëgg a waxtaane tey lu jëm ci tudd yàlla muy zikrullah xam nañ ne nit li mu am li ci gën a foor mooy waxtu wi ko suñu boroom jox muy ndab li nga xam ne ci lay def yu baaxam waaye muy ndab li nga xam ne it mën na ko sàggane ñàkk ci loo xam ne mënoon na cee am lu réeréy lu koy jariñ ci tayam lu koy jariñ ci ëllëgam waxtu woowu nga xam ne lu la ci romb dootoo ko mën a dabu bis bu xas wëy dootu dellusi noo noo gu génn googa noo moom mënatoo ko dabu moo tax jullit bi war a bàyyi xel bu baax ni muy dundale waxtoom bañ koo sànk ci loo xam ne amul njariñ rawatina di ko sànk ci loo xam ne ay bàkkaar mën na ko jaa fekk te ñu toll ci jamono joo xam ne liy soxal nit ñi ci amul njariñ dafa bari lool ci ay wax ci ay jëf ci yu nit ki xool wala mu ko déglu muy jël waxtoom u yaato yaatu woo xam ne gànjar la wurus la woo xam ne mënoon na caa jënd ay tuyaaba yu bare baree bari yoo xam ne ndaxañ teef la lu dul jeex lu koy jariñ ëllëgam sëriñ bi mi ngi ci doon bàyyiloo xel ci masaalikul jinaan ñu wax ne nit ki noo gu ci moom rekk na xam ne gànjar la koo xam ne mënoon na cee jënd ndaxañ téef loo xam ne aw yiwam du jeex mukk moo tax sëriñ bi di soññee ci dundal waxtu waxoon ne wa amiril awqaata bin nawaafili baada al faraidi bila taxafuli wa hakada bis sawmi wal awraadi wa zikri wal fikrati fi tamaadi lañuy dundale waxtu la ca jiitu mooy yi suñ boroom subhanahu wa taala farataal ci jullit bi ginnaaw bu farata yi jàllee dundal waxtu yi ci ay naafi la naafi la yooyu moo xam naafila yi koor la moo xam ay wird la moo xam zikru la muy tudd yàlla moo xam xalaat ci suñu boroom kon zikru lu ama am solo la loo xam ne nit ki mën na ciy dundal waxtoom fu mu toll fu mu mën a nekk rek mën na ci dundal waxtoom bu nekkul ci waxtu woo xam ne dañ koo digle dañ koo digal muy déglu di teewlu lu mel ne bu ñuy xutba ci bisub àjjuma wala mu nekk barab boo xam ne waree su tudd yàlla mu nekk ci wanag kon nit ki fu mu nekk rek mën nay tudd suñu boroom subhanahu wa tudd suñu boroom nag muy zikrullahi taala dëgg dëggam mooy di teewlu suñu boroom di teewlu ak màggam bañ sàggan bañ a fàtte suñu boroom subhanahu wa taala loole nag ci xol la ko nit di def ak ci làmmiñ kon zikrullahi da ngay tudd yàlla ci saw làmmiñ waaye dangay teewlu ak màggam ci sa xol kon jëfi xol la ak jëfi cër kon zikru ga gën a mat mooy gi nga xam ne nit ki da koy wax ci làmmiñam waaye di ko teewlu ci xolam waaye bu ko teewlu it di ko tudd ci làmmiñam rekk lu baax la lu màgg la ndax yàgga tudd bari looy tudd yàlla ci sa làmmiñ dana ko yeggale ci sa xol dina yëngal sa xol dina tooyal sa xol ba booy tudd yàlla sa xol mën a teewlu tudd yàlla di lu mag loo xam ne suñu boroom subhanahu wa taala da ko digle soññee ci dige ci digle na ko barab yu baree bari wax ne yaa ayuha alladina amanu zkuru llaha dikran kathira wa sabbixuuhu bukratan wa asila yéen ñi nga xam ne dangeen a gëm yàlla na ngeen di tudd yàlla lu bari tudd yàlla lu bari nag kon mooy waxtu wu ne sa làmmiñ dafa war a nekk di tudd yàlla booy boo toogee boo taxawee boo tëddee booy dugg booy génn waxtu wu nekk rek war ngay tudd sa boroom di ko fàttaliku di ko tudd ci sa làmmiñ waaye di ko teewlu ci sa xol suñu boroom di ñu waxaat ne bu ngeen jógee ci julli gi na ngeen di tudd yàlla ci bu ngeen taxawee wala ngeen toog walla ngeen tëdd fa ida qadaytum alsalaata fazkuru llaha qiyaaman wa qu'udan wa ala junubikum suñu boroom ba muy lim way gëm yàlla yu góor yi ak way gëm yàlla yu jigéen ñi di wax ci seeni melokaan lam ca daaneele mooy wa zaakirina allaha kathiran wa zaakiraat ñi nga xam ne dañuy tudd yàlla lu bari ci aw góor ak aw jigéen ñooñu day suñu boroom ahaddallahu lahum maghfiratan wa ajran azima suñu boroom da leen waajale ak njéggal ak yool bu màgga màgga màgg kon di saxoo tudd yàlla dafa bokk ci màndargam gëm yàlla ñi nga xam ne suñu boroom subhanahu wa taala jox na leen ay xol yuy yu tooy jox leen ay xel yuy xalaat ñi nga xam ne dañuy waaru ci kawte fii suñu boroom subhanahu wa taala ñooñee ñooy ñi nga xam ne dañuy faral di baril waxtu ñuy tudd suñu borom subhanahu wa suñu borom mi ngi wax ne inna fi xalqi samawati wal ardi wa ixtilaafi lleyli wannahaari la ayatin li ulil albaab alladina yazkuruuna wa quudan wa ala junubihim mu mel ne kon tudd yàlla baril ko dafa bokk ci màndare gëm yàlla dafa bokk ci luy suuxat ak gëm yàlla dafa bokk ci luy suuxat xol di ko tooyal di ko nooyal di tax muy sawar ci lu baax di tax muy jeng jëm ci lu baax waaye naka noonu ñàkk néewal lay tudd suñu boroom ñàkk tudd suñu boroom subhaanahu wa dafa bokk ci màndargay naafiq wala yaazu billah ndax suñu boroom mi ngi wax ne innal munaafiqiina yu xaadiu innal munaafiqiina yu xaadiuuna allaha wa huwa xaadiuhum wa ida qaamu ila lsalaati qaamu kusaala yuraauna annaasa wala yazkuruuna allaha illa qalila mu bokk ci kon màndargay ki naafiq waliyaasu billah tayal ci julli waaye di njistal waaye di new lu ñuy tudd seen boroom kon tudd yàlla dafa bokk ci lii tax xolub jullit bi di gën a dal di gën a jàng jëm ci boroomam am xelam di gën a dal alladina amanu wa tatma innu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillahi qulub kon bokk na ci li tax nit ki di nuur ci ay caaxaan bakkanam jiital ko mu bëggum po di nekk ci lu ko amul njariñ bokk na ci la koy waral di bañ a néewal looy tudd yàlla subhanahu wa taala moo tax suñu boroom wax ne wala tuti man axfalna qalbahu an zikrina wattabaa hawaahu wa kaana amruhu furuta kon ku xolam sàggane tudd yàlla kooka bakkanam ak banneexam da koy jiital te bu boobaa ci ay caaxaan rekk lay jeexal ak dundam waliyaasu billah te kooka ñàkk tudd yàlla sàggane ko day tax seytaane man ci yow dara man laa jekku moo tax suñ boroom waxoon ne wa man ya'shu an dikri an zikri rahmaani lahu sheytaanan fa huwa lahu qarin tudd yàlla nag xeet yu baree baree baree bari la waaye ba ca gën a màgg mooy jàng alquran ginnaaw jàng alquran nag wax laa ilaha illa wax nañ ne moo gën a màgg ci zikar yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ko waxal boppam ne afdalu na tudd yàlla yépp tudd gi ci gën a màgg mooy wax laa ilaha illa nga xam ne dangay dàq ak nguur ak yeyoo jaamu ci ku dul yàlla subhanahu wa mu ne ñaan yépp nag ñaan gi ci gën a màgg mooy sant yàlla wax alhamdulillah kon tudd yàlla di loo xam ne lu bari bari ay jariñ la lu màgg la loo xam ne yonent bi alayhi wassalaam barab yu bari day wax jullit bi lam fa war a zikar waaye waxaale ca la nga xam ne moom la ko ci suñu borom subhanahu wa taala di fayee bokk na ci zikar yi nga xam ne jullit bi da koy def suba ak ngoon yooyu bu ci nekk yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax na ca ay njariñ waaye yonent bi alayhi salaam wasalaam jëmmi sikar ci boppam sax la wax lu baree bari ci ak màggam ak darajaam ngir rek jullit bi fonk ko ngir rek jullit bi bàyyi ko xel am na xadis boo xam ne da cay wax ne ndax duma leen wax li gën ci seen jëf yi gën caa sell ca seen boroom gën caa kawe ay daraja gën ci yéen ngeen di joxe wurus ak xaalis waaye gën ci yéen ngeen gàddu seen jaasi di xeex seeni noon ñu ne ko ah kay yow yonent bi yàlla bi mu ne loolee mooy zikrullah mooy tudd yàlla ala uxbirukum bi xayri amalikum wa azkaaha inda malikikum wa arfaiha fi darajatikum wa xayrun lakum min infaaqi zahabi walfiddati wa xayrun lakum min an tulqu talqaw aduwakum fa tadribu anaaqahum wa yadribu anaaqakum qaalu bala ya rasulallah qaal zikrullah ci xadisul qudsi boo xam ne yonent bi mi ngi ciy wax ne yàlla ci boppam moo wax ne man day duma tas yaakaari samab jaam ci man lépp lu samab jaam jortu ci man rek dana ko fi fekk saa bu ma samab jaam tuddee booba maa ngi ànd moom saa bu ma tuddee foo ci boppam ma tudd ko ci sama bopp waaye suma tuddee ci mbooloo ma tudd ko ci mbooloo mu gën mbooloo mam ma tudd ana inda danni abdi wa ana maahu xiina yazkuruni fa in zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi wa in zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in xayrin minhu kon loolu war naa tax jullit bi fu mu toll rekk di bàyyi xel boroomam di ko tudd ci aw làmmiñam di ko teewlu ci xolam màggu tudd yonent bi alayhi salaatu wassalaam àgg na ci di wax ne moo gën ñaan yàlla tudd yàlla moo gën a kawe ñaan yàlla ak ñaan ni mu baaxe nga xam ne yonent bi waxoon na ne adduwaa u muxul ibaada jaamu yàlla mooy ak yuqam wala ak yuram mooy ñaan waaye nee na képp koo xam ne tudd ma dox na sa digganteeg ñaan ma man yàlla danaa la jox lu gën la may jox ña may ñaan man shagalahu zikri an masalati aataytuhu afdala ma uti saailin kon loolu day tegtale rek màggu tudd yàlla ak teewlu yàlla ci sa xol loolu nga xam ne noonu la tudd noonu la tudd yàlla màgge yonent bi alayhi salaatu wasalaam mi ngi xamle yenn yoo xam ne wax na ne boo ko waxee am na lu la ca suñu boroom di defal subhaanahu wa bokk na ca boo xëyee wax subhaanallahi wa bi xamdihi subhaanallahi wa bi xamdihi nga wax ko téeméeri yoon yonent bi nee na yowmal xiyaam kenn indiwul lu gën li nga indi lu may koo xam ne indi na loola waaye indi leneen dolli ca leneen mu ne man qaala xiina yusbixu wa xiina yumsi nit ki su xëyee wax ko mu gont wax subhaanallahi wa bihamdihi miata marra lam yati axadun yowma alqiyaamati bi afdala mimma jaa bihi illa axadun qaala misla ma qaala aw zaada alayhi kon kenn waxul lu gën lim wax lu may ku wax loola waaye dolli ci leneen su dul سدى على السلام nga xam ne mooy euh, tudd yàlla nga xam ne dafa màgg lool ci waxtu wu nekk mu am waxtu yoo am zikkar yoo xam ne nag yonent bi alayhi salaatu wasalaam da ko wutal waxtu ba noppi wax la nga xam ne moom la ci jullit bi amee bu ko defee bokk na ca yooyee baqiyaatu saalihaat yi nga xam ne boo jullee ba noppi danga koy wax te mooy subhaanallah walhamdulillah wala la ilaha illa allah allahu akbar baaxiyaatu saalihaat yooyu nga xam ne Sëriñ ba waxoon na ne képp koo xam ne julli na ba noppi lu mu yàkkamti yàkkamti na ko def balaa jóg waxoon ne ñàkk a def baqiyatu saalihaat day tegtale ak ñàkki teggin diggante jullit bi ak boroomam yonte bi waxoon ne képp ku sàbbaal suñu boroom fanweer yoon ak ñett sant boroomam fanweer yoon ak ñett wax allahu akbar fanweer yoon ak ñett mottalee ko laa ilaha illa waxdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul xamdu wa huwa ala kulli cheyin qadir nee na ku ko def suñu boroom jéggal la say bàkkaar doonte dafa mel ne puritum géej na muy bare ak na muy lu yaatu yaatu su say bàkkaar tolloon noona suñu boroom subhanahu wa taala dana la ko faral anhu ak mbooleem nit yàlla yi zikar dañ koo def ci seen jumtukaay yi ñuy defare doomu aadama di ko di di moom moo tax moom da ko daan digal mag ñi waxtu wu nekk ñi daan ànd ak sëñ bi kenn daawul toog loxoy neen ci nekkoo di am looy jàng wala looy tari wala zik zikrullahi booy def ndax waxoon na ne zikkarkat ñi jaar ci yoonu yàlla ba muy wax yañ munta ñàkk di ko yóbbuloo boole na ca ne làmp ba ñuy niitoo mooy tudd yàlla minha siraaju bi zikrillahi jalla ala minha mata minha almataya bi himmatin aliyaati kon jullit bi rawatina taalibe bi kon war naa fonk tudd yàlla waxtu nekk moo tax boo demee ci masaalikul jinaan sëriñ bi dafa jagleel ab fasl bu mat sëkk ab jagleel ko tudd yàlla wax ca yu baree baree bari yoo xam ne bokk na ca ngëneel li nga xam ne tudd yàlla am na ko ak teggini tudd yàlla ak mu wax fa xeeti tudd yàlla yoo xam ne bu ci nekk dafa am njariñ yu bari yoo xam ne sëriñ bi leeral na ko ci mu am solo lool bokk na ci lam wax ci ay ngëneel li tudd yàlla rek ne lépp lu ab murit di saxal muy ku jublu suñu boroom bëgg ngërëmam lépp looy def di ko baril nee na saxal tudd yàlla moo ci gën amma dawaamu zikri fa huwa afdalu min kulli ma kaana al muridu yukthiru ndax nee na wax naa loolu ca nëbbuma ko yaluwuma ko ca faalewuma ñi koy diingat ndax sama tontu mooy la suñu boroom wax ne wala zikrullahi akbar moo tax mu ne xad qultu dalika bila israari wala ubali bi zawil inkaari fa kullu man saalani fali jawaab qabla wala tujaadilu ahlal kitaab mu tudd ci yu bare bare ci ay atteem tudd ci ay tegginam bokk na ca teggini tudd yàlla mooy nga nekk ci pàkk barab bu laab di ko fa defe ca boo koy def nga jublu xibla mel na ni ngay tooge booy julli wala nga ferank laayu bokk bokk na ca ay tegginam nga xeeñoo gët ndax nee na barab bu ñuy tudde yàlla faw ay malaaka dinañ fa nekk di ko déglu wala ak jinne yi nga xam ne dañoo gëm suñu boroom mooy mbindeef yàlla yooyu nga xam ne duñ leen gis waaye ñoom ñi ngi ànd ak nun bokk na ci teggin it nit ki kii zikar sellal li may li muy zikar bañ ca rax dara sëriñ bi indi xeeti zikar yu baree bari yoo xam ne bu ci nekk wax na ci ay njariñam ca ba ca gën mooy laa ilaha illallah muhammadun rasulullah nee na laa moom bokk doy na la ci rek ñu ne la ñu tuddee ko njëgug àjjana muy loo xam ne day jañal nit ki ay fitna xasbuka fiha annaha tudaa thaman jannati rabbina li dafia fitan bokk na ci meññetam mooy day saxal ci xolub nit ki wéetal yàlla di saxal ci ab xolam xam suñu borom subhanahu wa taala di ko ko defal bokk na ci zikkar yi nga xam ne yu am solo la sëriñ bi tudd ko mooy wax allahu akbar ak wax alhamdulillah nee na loolee day meññatam mooy day defa day def ci sa xol màggal suñu borom subhanahu wa taala ak sant ko day dëgëral sa yaakaar ci suñu boroom day yokk sa cofeel ci suñu boroom subhaanahu wa taala bokk na ci laa xawla wala quwata illa billahi al aliyil azim ak xasbunallah wa ni'mal wakil ne na ñaar yooyu ku koy zikkar daf lay dolli ak wakiirlu suñu boroom subhaanahu wa taala da dolli ak doyloo suñu boroom ak bàyyee say mbir julli ci yonte bi alayhi salaatu wasalaam lu bari la ci wax ci ay njariñam wax ne day def ci xolub ki koy saxal bëgg yonente bi alayhi salaatu wasalaam day def ci moom topp sunnaam da koy jàpp ndalal waaye day def ci moom mu mën a jariñu ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam wax ne salaatu ala nabi day defar nit ki di ko yar di ko sellal di ko yéegi di ko jegeel boroomam wax na ci tudd na ci istixfaar mooy wax astaxfirullah nee na ku koy saxal dangay ngay jub da sax ci ragal yàlla ceet ku koy saxal suñu boroom da lay jéggal say bàkkaar ku koy saxal suñu boroom da lay sutura day sutura say ayib ku koy saxal suñu boroom dana la tàbbal àjjana bismillahi rahmaani rahim moom it wax na ci njariñ yu baree baree bari nee na rek boo xëyee boole kook laa xawla wala quwata illa billah al aliyil jàng ko fukki yoon ci waxtu suba nee na da nga set ci say bàkkaar mel ne bis ba nga gane woon àdduna suñu boroom dana la jañal juróom ñaar fukki balaa ak ñaar yoo xam ne ba ca gën a woyof mooy ràmm ak ngaana wala yaasu billah dana la boole juróom ñaar fukki malaaka yu lay jéggulul sa boroom bismillahi rahmaani rahim sëriñ bi nee na day dox diggante nit ki ak jinne yi nee na boo ko jàngee juróom fukki yoon ci kanam ab tooñkat boo ragal loram nee na suñu boroom dana la musal ci aw ayam boo ko jàngee ñaar fukki yoon ak benn moom bismillahi bismillahi rahmaani rahim nee booy tëdd yàlla dina la musal ci deegu bette lu mel ni ay crise cardiaque wala yii yi dal nit mu faatu faatu gu gaaw AVC yàlla nañ ci yàlla musal ci yooyu yëpp nee na ku koy jàng suñu borom dana la ci musal dana la musal ci sàcc yi dana la musal ci ay seytaane azan allah min sharri waaye sëriñ bi sikkar yooyu yëpp ak njariñ yim ci wax dana nag mbooleem njariñ yu ñu wax ci sikkar ak ay mbóot suñu boroom dëxëñ na ko ci la ilaha illa allah mu ne lakinna haza kulluhu kullahu majmuu fi zikri fardin qaalahu almatbuu wa huwa laa ilaha illa allahu muhammadun arsalahu mawlaahu loole nag kon saxal ko lu ama ama am njariñ la waaye it kon loolu nga xam ne ay mbóotam nee na ko bind ciy téere wa kasfuna asraarahu laysa yaliq huna li kawni sirrihi bahran amiq kon warees na koy saxal waaye nag loole kon waris góor góorlu ci mbindam yi nga xam ne bind na ko taalif ko muy xasidaam yi ndax ginnaaw nee na ila tawaalifi yaqudullahu asraara laa ilaha illa allahu boot yooyu nga xam ne nee na kenn du ko bind ci ay téere suñu borom wammatal na ko ci taalifam yi kon war na tax ñu fonk taalif yooyu bu baax war na fonk xasida yooyu bu baax kon lii lenn la rek ci njariñi zikar yoo xam ne kenn mënu koo xam ku may suñu boroom ak kum ko xamal yàlla nañ ci yàlla saxal ñu bañ a sànq suñuy waxtu nit ki fu mu toog lum mu xat-xat mën na fay tudd yàlla boo toogee di nekk nit booy foo barab bone rek war ngay góor góorlu di tudd sa boroom yàlla nañ ci yàlla saxal ca defal ñu njariñ ci nekk yëpp di ko ñaan ci ak màggam mu yàggal fi Cheikh Mouhamad Muntaka ak mbooleem jabootu sëriñ bi sa saxal fi jàmm saxal fi xéewal wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu an la الحمد لله المنعم المنفرد بذي الإيجاد الممد لأهل الإيمان بإيجاد محصولاتها الفوز بالخلود في الجنان والنظر إلى وجه معبود العباد وصلى وسلم على خير مناد لهذه السعادات نادى سيدنا محمد الذي يسعد من لبى دعوته ويبور من خالفه عنادا وعلى آله وصحبه الموضحين للطريق لمن جاء بعدهم من أهل التوفيق أما بعد فيا عباد الله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 ومن قام بها على سنة رسوله الكريم أجاره من عذاب نار الجحيم وأحل له رضوانه في جنة النعيم ورضوان من الله أكبر ذلك الفوز العظيم ولا سيما هذه الصلوات التي تدعون لها فهبوها أكبر من أخواتها وأجلها لأن مقامها في العبادات مقام الرأس في أعضاء الذات ففرغوا لها القلوب محل نظر الرب وطهروا لها الثياب والأجساد تفوز بالقبول والقرب إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر وفي الحديث بني الإسلام على خمسٍ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان الحمد لله الذي تفرد في ملكه وبقاه وتقدس وتنزه في أزليته فلا عين تراه حكم بحكمه في خلقه فلا معقب لحكمه ولا راد لما قضاه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 faqad faaza man ittaqaa wa uxadirukum an ilmaasi faqad xaaba man asaa mawlaa wa laazimu taacatahu fa fi taacatihi ridaa wa anhaakum an ittibaaci alhawaa faqad dalla man ittabaca hawaa wa aamurukum bi tacjiili tawbati qabla an yabluga al ajalu muntaha waalamu ya ibadallah anna man dakara allaha dakara wa ma tuqaddimu li anfusikum min khayrin tajiduhu inda allah وهيروا زمانكم هذا فإنه زمان قل خيره وكثر بلاه واستغل كل منا بطلب دنياه وغفل الغافلون عن الموت فلا حول ولا قوة إلا بالله وصار الدين غريبا كما كان مبتدا فوا أسفا وقلة حيلتا في يوم تظهر فيه الفضائح وتشهد علينا فيه الجوارح والحاكم هو الله yowma laa tamliku nafsun li nafsin shay'an wal amru yowma idin lillah wa fi lxadis laa yuminu axadukum xataa yuxiba li axiihi maa yuxibu li nafsihi waffaqana allahu wa iyyaakum li taa'atihi wa atamma taqsiranaa bi afwihi wa xilmihi wa bi qabuulin xasanin taqabbala minnaa wa minkum bi fadlihi wa juudihi wa karamihi amiin yaxfirullaahu lanaa wa lakum wa li jamiil muslimiin allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salaati hayya ala alfalaahi qad qaamat salaatu allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah الله أكبر الله

allahu akbar allah جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبسوسة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء Marcelo